mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ci seen àndax ñun ci rajo Rewmi FM dimanche bu jot rek ni leen koy amalee émission gox bi te nag ñu am ci mbégte yéene bu yaa di ci dalal ki nga xam ni moom moo di alfa jàllo nekk entrepreneur ndawal entrepreneur ki yëngu itam xam-xamam màcc ci li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum filière arachidière bi ñu mel ak yeneen ponk ak yeneen statut yoo xam ne itam suñ ko joxee kàddu mu daal di fësal li ni mel Alpha Diallo ñu ngi lay sant di la gërëm ci ni invitation. prestation bi émission gox bi. waaw Bemba Cheikh Dramé maa ngi lay remercier bu baax maa ngi tudd Alpha Diallo et di PDG Narjo agro industrie nekk dans le euh, dans la transformation de la l'arachide au niveau du Bawol mhm. regroupé wu au sein de benn structure wala benn regroupement bu ñuy wax Raziat mhm. donc je vous remercie ci invitation bi mhm. donc euh, nu mu gën a yaawee dinañ waxtaan ci lépp loo xamante ne posé ngeen ci ko am na solo ñu am ci mbégte nag yaa di di la dalal ci plateau émission bi alors dañ koy dooree rek mbirum coronavirus xam nañ ni àdduna wërngal këpp bokk na ci li nga xam ne moo jëm ci loo xam ne dafa lompañal wi. Mhm. coronavirus bekkee ay jamonook ay xët-xëtam yu bari tey ban kàddu nga am ci li nga xam ne moo jëm ci jàngoro coronavirus bi nga xam ne mën nga koo yëkkati. bon voilà bon bu fekkee comme man ku nekk immigré nekkoon Europe. et wala nekk Europe ba léegi euh, situation coronavirus virus bi dañ ci confronté wu ci dëkk boo xamante ne tous les jours da nga yeewu di dégg ay quarante mille cas. Mhm. dix mille cas dix mille morts et cetera. Mhm. et aussi ma confronté wu ci confinement total. Mhm. donc du mois de mars ba mois de juin. maa ngi woon France. donc dund ko tëdd ci benn nekkoon. donc man dundu naa coronavirus bi pleinement. donc au Sénégal man je pense que message bi ne n'est pas bien passé pour une seule raison. Mhm, lu tax. et déjà euh, dirigeants yi dañu dañu gëmloo affaire bi ñu gëm ko sant ñu benn affaire di def le contraire. Mhm. benn deuxièmement ñu ne ñu voilà pour pour ñu xeex coronavirus bi li ñu njëkk tegal mooy ay ceebax ak donc c'était comme ça deuxième fait bi mooy ñu monsieur Sall le président. ne ñu maintenant il faut ñu commencer vivre ak virus bi. Mhm. donc déjà problème mu leadership da ci am ndaxte troupe bu fekkee da nga koy jiite ki ci kanam. Mhm. souvent dans le monde animal ñu koy wax le mal alpha. Mhm. dafa am solo même équipe bu football. bu ñu footballul normalement entraîneur bi la ñuy changer et pourtant c'est pas lui qui joue le foot parce que y vraiment un problème de leadership donc ki ci kanam bu fekkee ni am na orage ci kaw population rek lépp lu mu ko wax dañ koy def. Mhm. voilà c'est comme ça que je vois les choses mais ba léegi terewul la population ne devrait pas suivre benn yoon bi parce que quand même Covid bi existé na. Mhm. il faut que quand ñu ko gëmul. waaw am na ko gëmul certainement. Mhm. certainement mais parce que comme li ma li ma décrire tantôt. moo waral gëmuñu ko. mais dañ si war a confronter wu bu baax. boo gisee tamit pays occident yi lan moo tax ñu gën ko gëm parce que bon ñoom ñoo ñu ëpp niveau de de de d'alphabétisation. déjà benn deuxièmement te bu ñu leen waxee ñu toog seen kër. Mhm. am nañ lu ñu jot. dañuy jot. maanaam ndàmpaay loo xam ne bu ñu toogal nga toog da ngay jot. Mm-hmm. donc fii boo waxee da nga wax ab góor góorlu wala ku nekk dans le secteur informel toogal. Mm-hmm. day day day day problématique. Mm-hmm. tey jii boo xoolee boo demee France euh, buñ nee nit ñi buñ ne surtout sociétés yi wala informel bi wala ba pas informel bi formel bi petite et moyenne entreprise TPE yi buñ leen waxee ne toog leen wala tëj leen heure bi dañ leen di jox ndàmpaay. fii nag mënoo ko def parce que le secteur est informel mhm. donc du coup il est très difficile pour que nga wax ni toogal te joxoo ko alternative bu mu toogee mhm. léegi boo demee France sax kenn waxatul Euh, maanaam euh, nañu génn mhm. li ñuy wax mooy dañu bëgg a liggéey donte yéen ak ñuy dàmp soxlaw ñu ndàmpaay bi mhm. kon donc ñoom ñu ngi ci beneen niveau mhm. ñun fii déjà que loolu noonu yëpp dafa confronté wu et moo tax il est difficile pour euh, les petits chefs d'entreprise wala l'informel ñu topp procédure bi ñu leen bëgg a suivre loolu mais bu ñu xoolee itam jàngoro ji ak nu muy lawee ak loraange yi nga xam ni mu ngi koy am ci wàll wi ni mel alors dañu dem ba gis ni li nga xam ne moom moo jëm ci deuxième vague bi ñëw wuy suñu mi yóbbu ci nit bari. Mhm. donc chaque fois ñuy wax nii rek maytu leen la nga xam ne moo jëm ci rassemblement yeeg dandante bi est-ce que da nga jàpp ni message bi nun koy joxee dandu ko ndaw ñi lu ci ëpp danga jàpp ni dégguñu message bi. bon man je vois dégguñu ko parce que souvent boo waxee benn affaire il faut nga étayer ko maanaam il faut que nga expliquer raison bi lu tax nga wax ko. Mhm. Euh, benn jour j'ai j'ai dama doon waxtaan ak benn ndaw la moo tax gëmul affaire bi. Mhm. mu jox ma quand même euh, benn réflexion bu scientifique. Mhm. bon bi ma ko waxee lan moo tax gëmul affaire bi mu ne ma feebar bi lan lay bañ ma ne ko rassemblement et bañ a respecter distanciation yi. mu ne ma mhm. d'accord jëlal un ma ne ko waaw. mu ne ma màggalu Touba am na Tivaouane am na yëpp am na ñun ñëpp dem nañ bon Tivaouane demuñu mais beneen côté Tivaouane bi demoon nañ mhm. y aussi à Kaolack et cetera mu ne loolu yëpp rassemblement la ma ne ko waaw mu ne ma pourtant bi ñu ñëwee cas yi yéegul ma ne ko d'accord naa ñu dem ba ci kanam mu ne ma waa léegi pourquoi aujourd'hui defuñu benn rassemblement cas yi di yokk ma ne ko bon man je suis pas un ingénieur wala docteur boo xamante ne nekk na ci situation boobu. Mhm. bu la mën a expliquer fait boobu. Mhm. mais quand même ce raisonnement. Mhm. mën nañ ko comprendre. waaye nag mu ne ma est-ce que du vaccin bi mooy waaj a ñëw. pour ñu forcer ñu vaccin bi moo tax ñu ñu gëmloo ne affaire bi mu ngi yéeg. bon ma ne ko quand même d'accord naa. mais comme nañ ne mu ngi fi. yow moytul rek la meilleure façon de de de de se préserver ci affaire bi mooy. moytu. ok voilà léegi mais mais bu ñu gisee euh, maytu euh, bi ni mel gars yi ñu ngi naan vaccin bi mooy alternative bi. Mhm. pour nit ñi mën a am wér bu baax ñu ngi dégg itam variant britannique bi mi ngi fii suñu réew. Mhm. ba am na ci koo xam ne sax faj nañ ko ba mu wér. Mhm. ndax tey euh, nit mënut tiit ci wàll wi ni mel wala jàpp ni vaccin bi mooy alternative bi xanaa ñu jël ko wala moom Jamsa Diall moom pare na pour jël vaccin bi. bon pour dire vrai personnellement psychologiquement je suis pas encore prêt pour prendre le vaccin. Mm. parce que quand même maa ngi déglu euh, bu baax ce qui se passe France fi ma jógee notre président nous dit c'est pas obligatoire. Mm-hmm. voilà donc forcé wu ñu ma ko foofu. bon je pense pas que dinañ ma ko forcer fii. mais c'est pas une raison ba léegi. les les les vaccins sont présents dans le marché international. mais boo gisee bousculade bi ci am ak temps bi ñu ko defaree quand même ça ça ça da da lay duteloo quand mais lu ci mënti am. nañu xalaat bépp xel buñ ci am au-delà. de lu nit ñi xamul. na leen si rek njub jiital. pour que ñu xam ne. la population lu ñu xam lu ñu xamul. Mhm. buñ ko defee. Mhm. te ñoom ñu xam ko wala ñoom ñu bañ ko xam un mhm. jour ils rendront compte. ok loolu moo doon ponk coronavirus bu ñu doon njëkkee ci wàllum euh, santé gi. mais dinañ ñëwaat ci beneen ponk coronavirus ci wayu mbirum euh, mbay mi. alors euh, dañuy wax rek mbokki auditeurs yi itam bu nu mënee dugg ci émission bi 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86. 2006 Alpha Diallo ban ko doon présenté dañ ko présenté comme ndawal entrepreneur lan moo tax nga dugg ci entrepreneuriat. voilà depuis bi ma nekkee xale euh, ça a toujours été comme ça je me rappelle sama première initiative su ma juumul j'avais onze ans. Mhm. Euh, sama papa jëndaloon ma treize ginaar ma commencé si loolu jamono yooyu sant nag moo fi nekkoon. Mhm. ma commencé si di jaay ba affaire bi bëri bi mu bëree. bon ma génne si parce que au fait en réalité du bon pas de lu ma gëmoon parce que man industrie laa gëm après j'ai toujours œuvré ci yoonu defar industrie ma topp ci topp ci topp ci mais comme il était difficile de trouver des financements au Sénégal yàlla dogaloon en 2006 ma mën a tukki bi ma tukkee sama objectif c'était juste trouver les moyens de financer samay projet des projets j'en avais des centaines ba léegi nii samay livres ñu bëri bind lañ ma xamee donc en 2015 j'avais écrit un projet yóbbu ko FAISE mhm. ça a été élu le meilleur projet bi fi mës a présenté wu mhm. da doon da doon tourner autour de recyclage des pneus yi nekk ci mbedd mi mhm. mais finalement un lourd projet qui demandait beaucoup d'argent mhm. et Fès topp ma ne it euh, fi ma yaakaaroon yëpp jëlee xaalis bi pour def montage financier bi ça pas réussi mhm. loolu c'était le premier volet mais toujours bi ma nekkee Europe comme jàng naa aussi si production diwlin et cetera transformation mhm. ma ñëw Sénégal bi ma ñëwee sama objectif bi ma déggee benn protocole bu xewoon en 2018 mars 2018 bu regroupé woon les huiliers Rasiat l'État du Sénégal et les importateurs ma ne voilà maintenant il faut que j'investisse au Sénégal dans ce secteur que j'aime tant mhm. ma ñëw indi investir boobu nag machine yëpp mhm. maa ko investir sama xaalis maak mhm. sama rak sans beneen apport ñu def business plan bi mu génne somme bu con bu conséquent voilà ñu mettre ko en place dem Touba parce que Bawol la ko mënoo nekk ndax contrat boobu ku nekkul woon Bawol mënoo def ci mënoo bokk ci contrat boobu. ñu dem Touba ubbi ko fa liggéey fa la première année ça s'est bien passé. Mhm. en ma modo bon voilà man je suis un éternel entrepreneur. Mhm. gëwuma liggéeyal nit. Mhm. man pour man. Euh, un salarié amul ku ko gën a pauvre. Mhm. waaw voilà c'est ce que je crois. man je veux faire pour que les gens dépendent du système que j'ai créé mais mhm. pas man ma bokk ci système bi. ok voilà tey fan nga toll ci euh, wàll wi ni mel la nga xam ni moom moo jëm ci projet bi nga xam ni taxawal nga ko ba jàpp ni tey lii meññ na yaa ngi koy doxal fan nga ci toll. bon dañ koy meññ meññ na bon c'est un peu euh, subjectif. Mhm. peut-être euh, mais gëw ma ne meññ na parce que. à chaque fois su ma initier projet au Sénégal. Mmh. état du Sénégal muy tourné waat sama sama contre man yàq sama projet. ah ci naka. voilà donc damay joxe exemple bu mujj bi déjà bu may defar sama projet bi j'ai établi un projet. Mhm. de beaucoup de millions. Mhm. dem dem APIX déposer pour avoir sur les codes des investissements. Mhm. ma am ko parce que dama doon dem Bawol je créer de la valeur. et je créais aussi de l' emploi. APIX autorisé ma jox ma ab agrément ne ma. exonéré nañ la TVA pour trois ans jox ma beaucoup d'avantages mhm. fiscaux mhm. ma jël ko monte sama société indi ko yóbbu ko dans le Bawol boo xamante ne dëkk boo xamante ne soxla woon na liggéey bu toll noonu mhm. bi ma ko installé voilà donc euh, ñu de liggéey six mois dëkk bi amatul gerte et je me suis la question où est du Sénégal bu fekkee ne bi may def sama business plan pendant un an ma topp Bawol di daw pour xam réellement c'est quoi ce secteur un jour ñu ne ma gerte amatul Sénégal te ñu ngi may wax un million quatre cent mille tonnes un million deux cent mille voilà. Mm-hmm. léegi nag imaginez tey jii état du Sénégal mu ngi ma defal exonération boobu fii ak trois ans je serai confronté à rembourser l' argent des contribuables sénégalais. sama matière mu ngi basé woon ci gerte. état bi d'un d'un côté mu ne ma kaay investir de l' autre côté mu jël matière bi ma war a investir. léegi foo ci toll. bon ça fait deux ans liggéeyu ma. ça fait deux ans j'ai un industriel euh, un cimetière industriel. sama entreprise mu ngi may coûter. donc il est à à sec c'est dire donc euh, machines yi ñu ngi màgget sax si je peux dire bon j'entretiens les machines mais sama gardien moo fa nekk place bi et cetera qui me coûte quatre virgule huit millions de francs CFA tous les ans. entreprise bi dugalul xaalis. Hmm. kon donc bitim réew bi ma nekk di gagner sama xaalis bu waroon dem sama bopp moom laa jël di def foofu pour que sama entreprise mën a nokki. Hmm. et tout cela parce que simplement l'État du Sénégal a reconduit. Hmm. un protocole avec les chinois bi nga xam ne moom mooy dem ba deux mille vingt quatre. Mhm. donc man loolu da ngay jàpp ni daf leen ni gàllankoor. Ah du dafay jàpp dañ leen ni la charité bien ordonnée commence par soi. balaa ngay laax jaay da laax lekk aujourd'hui je peux aller en Chine pour def yenn affaires yi et surtout dans des domaines aussi stratégiques que l'agriculture. Mhm. tey jii dëkk bi mënoo fi wax autosuffisance mënul nekk. autosuffisance boo xoolee dans le cadre général bu ko jël ci benn benn ay point da ngay jël dans le cadre dëkk bi amul autosuffisance. jëlal bi ngay ndékki blé bi ñuy defar Russie lay jógee wala kanada wala France nga ñëw añ ñu ne la Sénégal a besoin d'un million neuf mille tonnes par an pour dund mhm. vallée bi dégg nga ñu fay wax un million six cent mille ton paddy soit un million cent mille kii mhm. ñu ngi dugal au Sénégal un million beneen un million cent mille euh, ceeb mhm. kon yaa a deux millions deux cent yu fi nekk kon donc pourtant li ñu fiy bay en tout cas ñoom li données yi ñu joxe mën nañu dundal mais pourquoi ñuy importer da jàpp ni amu fa yoon. mais amul yoon bu fekkee ne simplement am nga un million cent mille. Mm-hmm. yaa ngi dundal mën na dundal sa dëkk. te mm-hmm. yow un million neuf mille nga soxla. Mm-hmm. mais lu tax ngay dugal un million de plus. donc man pour man voilà aujourd'hui on devrait cesser de travailler juste pour les chiffres. mais dugg ci nga jàpp ni chiffres yi day yu ci bari ay naxaate la. non du ay naxaate man damay chronique si l'arachide du Sénégal. Euh, defe naa ne tey jii kuy seetaan samay chronique gis na ne man je porte des faits et faits yi may donné yi may joxe du samay donné bopp. Mhm. ministre bi laay déglu mu wax ma teg analyse si wax ji mu wax. Mhm. wan ko ne si chiffres yi nga joxe yow ci boppam da nga am da nga faux kon donc aujourd'hui on peut pas construire quelque chose dans l'illégalité mënul nekk. léegi nan lañ war a def pour jubbantiwaat agriculture bi nga wax. voilà man ci sama domaine pour defaraat ko solution bi bon je bon mal de le dire parce que gëwuma ay solution conjoncturelle solution bu conjoncturelle moo fi nekk solution bu conjoncturelle mooy solution bu léegi léegi. Mhm. mooy arrêter les arrêter l'exportation de l'arachide via le protocole avec les chinois. mooy maanaam Chine mais chinois yi bu ñu génnee seen loxo ba mbir mi du metti non. bon fait boo ko déggee foofu waaw waxuma ñu génn seen loxo je suis pas contre la venue des chinois. Mmh. mais période bi ñuy duggee moo baaxul. bu fekkee da nga am tissu industriel Sonacos état bi moo ko moom Copeol West African Oil. yaa ngi dégg CAIT même bu fekkee CAIT te instant bi doxalul ni mu doon doxee. Mhm. Rasiaat bi nekk Touba cent cinquante unités. yu nekk un bras industriel lu Sonacos. données de l'ANSD yi génn bon génnagul 2017 2018 lañ ko tuddee mais ñëw nañ fa def benn rapport pour trois mois nee nañ secteur Acrasiat quatre mille cent soixante et quelques emplois lay absorber directement. Mm-hmm. yow nga nangu joxe priorité bi au chinois pour ñu génne ko délaisser sa quatre mille cent et quelques emplois où le résultat la Chine c' est dix sept un de ton sept millions par an ñoom ñooy premier producteur d'huile d'arachide et premier consommateur ñoom ci boppam du ñu exporter diwlinu gerte yow nga nangu ko am 17 million ci dëkkam ñëw jël sa 1 million et quelque même nit ñi di werante sa 1 million. de quelque da nga jàpp ni dafa doy eh, bi ma la wax la moo tax kii am 17 million de tonnes ñëw di xëccoo sa 1 million de tonnes la solution c'est simple. Mhm. mooy lan joxal priorité bi marché bi. Mhm. ñu ravitailler la demande nationale Sonacos capacité de collecte de 3000. de trois cent soixante mille tonnes la am. boo ko boolee huile yëpp six six cent un peu moins de six cent mille tonnes la. Mhm. consommation wu dëkk bi quarante mille la capital semencier cent mille tonnes la. mais ñu ravitaillé ñooñu ba pare. mais ci loolu ci la njiitu réew mi sax wax ni Sonacos faaw ñu adapté wu ci ni nga xam ni ñooñ la euh, wàllu mbay mi di doxee faw ñu jubbanti waat ñu itam ñoom seen taxawaay ndax d' accord nga foofu kon ak njiitu réew mi. bon d' accord naa ko mais bi mu waxee loolu ma dama tegoon ne DG Sonacos mooy wax. pourquoi parce que mënuma jël ab DG wu société di ko waxal place am parce que boo xoolee bi mu président bi waxee loolu ba pare la faada commencé génnaat ci tal si si mbedd mi def tournée pour mm-hmm. génn collecte da nga xam ne à partir de président bi mu waxee ak faada bi mu bon à partir de président bi mu waxee ak tey nga gis la flèche de la collecte de Sonacos a monté kon dafa yéex. waaw dafa yéex maanaam cest que li ma bëgg a wax mooy. Mhm. président bi du moom moo waroon waxal faada donte wax na war na wax mais faada warul xaar wax yu mel noonu pour agir pour pourquoi parce que c'est un politicien man je suis un industriel man c'est les faits que je juge. Mhm. du xaar. président de la république jox ma wóolu ma jox ma ab poste may xaar mu wax ne dama war a changer stratégie bu may utee gerte pour changer stratégie bu may utee gerte. Mhm. léegi maintenant boo waxee ne chinois yi bu fi jógee dañ naan la mais baykat yi après nu ñuy def. d' accord mais y' a un protocole bu pas protocole y' a un décret de 2010 15 du 13 janvier 2010. Mhm. Souleymane Ndéné Ndiaye moo ko signé. Mhm. buy wax ne gerte Sénégal dañ ko war a exporter seulement le surplus. bañ na ko boo xoolee esprit wu décret bi da ngay gis ne à partir de un million de tonnes li ci tóol ngay comprendre ci esprit décret bi loolu la ñu war a génn Sénégal. ok kon donc tey jii boo déggoo tout récemment wala y' a un de deux mois ministre de l' agriculture. Mhm. bi ñu bi commencé jug. di contester ne chinois yi ñu ngi yóbbu gerte gi. Mhm. mu arrêté exportation yi. Mhm. lan la wax ci conférence de presse boobu mu ne bés bu chinois yi arriver à trois cent mille tonnes dinaa dinaa bloqué dinaa bloqué gerte gi. loolu lu mu wund. ah loolu c'est pas intelligent yow sa waa dëkk amaguñu gerte. nga ne da ngay xaar. amagu amaguñu gerte. Mhm. xamoo capacité réelle bi ñaata la. nga ne da ngay xaar ba ñu génn la trois cent mille tonnes de graine graine la maanaam trois de tonnes et un peu moins de cinq cent mille tonnes. Mhm. c' est un tiers de sa production bi nga xam ne moom nga def production. léegi nag nga xaar ba loolu génn nga commencé réfléchir léegi bu fekkee ne génn na te loolu rek nga amoon ci marché bi léegi nu sa secteur industriel di def voilà les problèmes du secteur. jàpp ni loolu c'est un aveu bon man ministre bi man pour man voilà et des fois tubaab day wax la meilleure façon de cacher son ignorance c'est de se taire pour man vraiment le ministre ne devrait plus parler. ah bon parce que quand même euh, boo xoolee ci dictionnaire u mm, médical ou psychologie dañ naan la ignorance boo la boo xoolee ignorance ñu ngi koy définir comme quelqu'un qui fait les mêmes erreurs et qui continue à les faire yaakaar ne mu ngi développé wu. or or qu'il se développe pas il est toujours au même point cest dire que da def un pas en avant un pas en arrière au fait avancé woo da delluwaat fi nga nekkoon c'est loolu la ministre bi di teg sur le plateau mhm. loolu la ñuy c'est dommage moom mu ne deux mois bañ commencé tey campagne bi Euh, mu ne lépp gongo <laughs> parce que amul amul difficulté soixante cinq jours ba tey mbir mi mi ngi dox ba ci am nañ ci sax trois cent mille tonnes yu nga xam ni collecté nañ ko déjà ci gerte gi ah, xanaa loolu c'est un grand un un bond en avant quand même. bon euh, tey laa ko déglu grand jury muy wax wax yu mel noonu en plus en bon en fait c'est avec un grand tristesse et amertume que je regrette profondément waxi ministre bi. parce que pour man mënoo tenir propos yu mel noonu devant tous les sénégalais et surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci filière boobu. xanaa terrain bi euh, réalité leneen la joxe. bon dama lay jox ni muy calculer. Mhm. du samay wax di moom moo ko wax. moo feeñ RFM bon TFM plus précisément après journal bi su ma juumul Pape Djibril Fall moo fa nekkoon ak beneen dam mhm. Pape Djibril Fall posé que ne ko nan ngeen di calculer gerte Sénégal mu ne cinquante deux agents. la wax tey sax ci RFM matin cinquante la wax cinquante deux agents ñooy vérifier soixante trois mille exploitations tey soixante mille sax la wax fële RFM bon nañ jël ci chiffres yi ma lay wax deux mille dix neuf deux loolu la wax bi ñu bi ñu waxee am nañ un million quatre cent vingt et un mille tonnes mu ne voilà soixante trois mille exploitations cinquante deux agents mais après bi ko journaliste bi toogee noonu bàyyi mu jàll ma ne vraiment journaliste bi élève L la du élève S. boo defee division bi ñoom maanaam agent bu ne dina def mille deux cent onze tool mu ne ut la ñuy commencé ministre bi mooy wax de samay wax mu ne août la ñuy commencé boo xoolee agent bu nekk mënul def deux cent par weer pour pourquoi parce que boo xoolee période bi mu commencé mois d' août plein période divernage ak ay moto. Mhm. nga war a jógee Casamance dawal sa moto ba Tamba jógee Tamba war a ñëw ba Bawol kooku mënul def plus de deux cent léegi nag mu ne kooku noonu def na mille deux cent onze en mois de deux mois ñooñu il leur fallu au mois six mois. pour ñu def loolu pour ñu def loolu. que ministre bi mu door ko véhiculer moom nag août septembre octobre mu présente ñu donne un million quatre cent mille tonnes donc c' est faux ci calcul boobu la base pour def li ñuy wax ci euh, ci ci ci statistique un calcul de proportion pour mën a tirer toute l' agriculture sénégalaise mais c' est honteux. te da nga jàpp kon problème yi ñu ngi fi. et bu fekkee ci base yooyu la ko calculer il a faux cinquante deux mille ñu visiter soixante trois mille tonnes soixante trois mille tool loolu c'est impossible léegi nag nee na moom foofu lay jëlee calcul te waa SILS waa SILS c'est le commune c'est le le comité inter état mm-hmm. de lutte euh, contre la sécheresse dans le Sahel FAO si ñu chiffres yooyu la ñuy basé pour valider ko données yooyu je defi défie loolu et je défie quiconque ku mën a taxaw fii devant moi expliquer que un million quatre cent mille tonnes sur ces bases de données là lañ koy pour wax ko. la nga jàpp ni kon dañ koy jox ay chiffres yoo xam ne ça n'existe pas. mais wees weesu na loolu. 31 mhm. décembre bi ñuy wax. monsieur le président bi mu toogee ci kanamu sénégalais yi di exprimer wu surtout journaliste RTS bi mu ko demandee ci gerte gi monsieur Sall nee na bi mu fiy ñëw deux mille deux mille onze deux mille douze campagne arachidière boobu nee na fekku fi. monsieur Sall moo ko wax de fekku fi sax cinquante mille tonnes donné ANSD ANSD du man du du du du contre pouvoir mm c'est c'est le pouvoir parce que ñoom ñoo yor donné dëkk bi bien sûr donné ANSD année boobu nee nañ cinq cent vingt sept mille ton moo fi amoon alors président fa la jëlee cinquante moyen de cinquante mille ton bi léegi nag ñi ñu jiite bu fekkee ñoom ñoo yor ces fausses in bon parce que pas ces fausses informations je le dis xaw ma ndax am nañ temps wu li ñuy lire mais bu fekkee ñoom ñoo yor données yu bon yooyu basé wu ñu si agriculture pour convaincre pour ñëw man bi may ñëw fii di investir parce que dama doon déglu ab ministre bu doon wax am nañu un million quatre cent deux mille vingt boobu bi ñuy wax un million quatre cent mille ton d' accord wax un million quatre cent nee na trois cent vingt sept mille tonnes moo fi génn arachide graine boo ko xoolee quatre cent quatre mille tonnes la xottu gerte nañ jël cinq cent pour calcul bi yomb dëkk bi ci biir dëkk bi li ñu fiy lekk ci gerte. Mhm. données yi ñu mujjee am musul passé quarante mille tonnes nga boole ki fële yaa ngi ci cinq cent quarante capital semencier dina des sept cent quatre vingt mille tonnes est-ce que deux mille vingt ja dégg nga fi producteur bu ne la jaayuma sama gerte. ah gars yi ñuy jaay de. man année bi passé laa la est-ce que dégg nga kenn benn rajo bu fi dégg micro agriculteur wala producteur mu ne la am naa gerte sama kër jaayu ma ko xanaa 780000 kon ku ko denc Sénégal nag dina feeñ. yaa may dégg voilà les bases sur les lesquelles aujourd'hui se repose notre économie et surtout l'agriculture mm-hmm. man mmh. pour man c'est pas important de compétir pour les chiffres man j'ai jamais compéti même bi may jàng je compétissais pas pour les notes man xam-xam laa doon compétir. donc il faut qu'aujourd'hui li ñuy wax ñu tekk sur de réelles bases man si chiffre yooyu laa dégg ab ministre mu wax mu ñëw Sénégal pour investir léegi caaxaan weesuwul mu génnewaat conférence de presse mu ne même bu fekkee ne jox naa leen un million quatre cent mille tonnes. quarante pour cent loolu ngay estimer wala cinquante mënu ko weesu. ça fait dafa mel ni tey nga woote sa gestionnaire de compte banque mu ne la sa compte ak certificat ak certificat am nga fi cent mille nga xëy ko jëli mu ne la non non mille moo fi am. loolu ministre bi wax cest dire que euh, même man boo ma defoon loolu je je vais dire que mais yow foo jëlee calcul yi ma joxee kon un million quatre cent secteur bi bu ñu ko bëggee defar il faut que déjà que ñu accepter qu'il y a une erreur ñu jubbantiwaat voilà mhm. développement personnel lay jàngal la meilleure façon d'accepter de de de de de de de une wala de trouver une solution c'est d'accepter d'abord mhm. qu'il y a qu'il y bu fekkee ministre bi tey toog na télé mu musul mën a nangu ne am na erreur. Mhm. donc on trouvera pas on trouvera jamais la solution au moom dafa jàpp ni tey ci ay waxam nee na li nga xam ne moom moo jëm ci euh, récession bi bu fekkee demuñu fa. Mhm. Euh, mbay mi am na ci pal wàll wu am solo xanaa loolu mun nga ko nangul itam. non loolu dinaa ko nangul loolu c'est partout dans le monde boo demee France fu mu mënti doon nit lu mu mënti lu mu mënti dem ñu en tout cas tant que deewul dina lekk. kon donc l' agriculture mënul woon bokk ci Covid. bu fekkee seulement mën na ci bokk bu fekkee seulement nekk na dans des zones recoins yoo xamante ne ay moyens de transport mënu fa nekk pour jëli ko dugal ko ci dëkk bi. Mhm. bon vu un benn vidéo en ligne bu doon wane les difficultés des gens du sud et surtout de la Casamance. Mhm. moment Covid bi Euh, euh, bato bi demu fa affaire yooyu demu fa. Mhm. que ñoom amoon nañ seen màdd yéex seen mango yi di nëb foofu. seen kii yeneen waaw voilà voilà di nëb foofu. Mhm. mais maintenant aujourd'hui nangu naa ko aujourd'hui pour bu fekkee ne tey jii génn na télé nangu ne tey jii bu ñu éviter récession bi c'est grâce à l'agriculture mhm. mais quand même na wuyu l'agriculture. daaw daaw président bi yokkal na ko vingt milliards. Mhm. ren budget am presque cent vingt sept milliards la. Mhm. quinze milliards la ñuy jël di ko dugal rien que pour gerte gi. Mhm. et amagul résultat. on devrait même pas continuer à perfusionner une zone bi. nit ku dee ba pare kenn du ko perfusionner no non il faut trouver une autre solution. ou bien dañ koy enterrer ou bien on essaie de trouver une autre formule pour essayer quand euh, situation bi avance. est-ce que tey yow euh, alfa tey jege nga wala euh, jéem nga bind comme ci kuréel gi nga nekk RASIAC kuréel la goo xam ne ràññee nañ ko fii ci Sénégal. Mhm. ci yëngu-yëngu lu ñuy def ci diwaanu Bawol est-ce que tey jotul woon seen kuréel gi ut benn daje goo xam ne. Mhm. di ngeen ko jéem a am ak ministre bi jéem a toog waxtaan itam comme solution nga am moom itam ngeen waxtaan xool ban yoon lañ mën a jaar. man personnellement j'ai cherché par tous les moyens de la l'avoir. le ministre le ministre. Mhm. bon feeñ na tere nee na jot ko gisul lu ko gën a yomb parce que via WhatsApp boo ko yónnee message da koy tontu. Mhm. mais bon man aw ma WhatsApp am. aujourd'hui pour communiquer ak moom c'est tellement difficile. Mm-hmm. parce que bu fekkee dangay ngay wu. ne li nga gëm lii la. munoo nangu keneen mu ñëw nga jàpp ne ubbeekuwul ubbeekuwul. nee na tey génn na bi mu génnee rajo tey daf ne kenn mënul contester chiffre am wala en tout cas ñii di kaas kenn indigul ci taabal bi lu contester chiffre moo tax moo tax du tey yéen ngeen mën a teg fa ngeen mën a teg seen chiffre yi ngeen am fan ngeen ko mën a sukkandiku. tey pour mën na ko contrecarrer ci wàllu yu ni mel. dégg wax sama première chronique bi defe naa ne. science gënul weese sama première chronique bi ma def si l'arachide du Sénégal mafia bi nga xam ne am na ci euh, de filière arachidière moom wax na loolu man aussi je suis euh, un élève de la CERES donc du ma ne maa daax jàng bon yegguma foofu mais quand même calcul mën naa ko sànq li ma la wax ci mille ak 52 yi loolu rek doy na pour contester ko te bés bu ma amee occasion tiim ko dinaa ko contester waat est que bind nga audience ngir vraiment personnellement binduma audience il faut le faire mën a waxtaan ak moom ci ci wàllum mbay mi. d'accord xam nga tey ji euh, dañu toll vingt et unième siècle de communication yi dafa bëri. waaw maa ngi génne YouTube bi ma génnee tey ji bi ma xoolee ñu ngi ci mille huit cent et am na kenn ku ma wax personnellement yónnee na ko direction wu ministre de l'agriculture mu dégg li ma wax kon donc man tey moom dañ ko jox pour mu ñëw ci man. man kenn fayuma pour ma ñëw ci moom mais c'est pas une raison que waruma dem ci moom mais tey jii moom intérêt Sénégal en tout cas ki ko fi teg muy le président l'intérêt Sénégal ou l'intérêt des Sénégalais lañ moom lay défendre moo tax mu toog fi kon donc moom bu ko fi tegee donc man dama gën ne loolu la war a def mais bu feeñee télé avec euh, une très grande condescendance et bon je dire même à la limite des fois un que mu siffler wala mu gifler tout notre secteur. Mm-hmm. et c'est pas normal. te pourtant moom nee na producteurs yi amul kenn kuy contester tey ci li nga xam ne moom moo jëm ci euh, gerte gi anam gi nga xam ni nag moom lañ ko euh, amee ren gi genn benn euh, producteur génn ŋàññi ci wàll wi kon affaire bi mi ngi dox non xam nga ren nee na million huit cent mille tonnes la ñu wax sànq si suba nee na waa du mbokk mi waa Kolda nee na nee nañ ko sax da nga da nga da nga sous-estimer ak hmm. mën na yegg ba deux millions mais ñi nga bokkal néeg sa ginnaaw rek lañ lay raggal ah, da nga jàpp ni ñooñu ay moo ñooñu non waaw loolu la wax ay producteurs ñu may toogal ñu may bokkal añ loolu la wax ñooñu mënuñu ñooñu mënuñu ko wax le contre parce que bu dul loolu ñooñu dootuñu añ donc c'est pas kii moo ma wax lii c'est pas kii moo ma wax lii ministre bi man ren mënaguma wax ne am nañ un million huit cent wala amuñu ko. yow mënagoo gëm chiffre boobu. mënaguma ko con mënuma ko constater sax parce que tant que douane génneegul li génn Sonacos waxagul. huiliers yi nekk Sénégal de manière générale waxaguñu. Mhm. mënoo xam ndax chiffre boobu dëgg la am du dëgg. parce que instant bi moom mën na avancer ay chiffres mais base de calcul yi effectif agul il faut que nga xaar saison bi yëpp jeex pour que nga xam ndax amoon nañ réellement un million huit cent mille wala amuñu. Mhm. mais ce qui est mooy gerte gi baaxul. coowal euh, gerte gi seen filière bi dafa bëri coow lool lool lool lan mooy problème bi. xam nga euh, bon man je dirais parce que amuñu politique agricole au Sénégal. Mhm. boo xoolee tonnage yi ñuy wax fii yëpp di ko bàkku tout juste avant l' indépendance en cinquante amoon nañ un peu moins de huit cent mille tonnes. Mhm. Senghor am avant mu fiy jógee dans les années soixante soixante mhm. amoon na. pardon amoon na un million quatre cent mille tonnes. Mhm. kon donc tonnage yàgg nañ ko def. et boobu moo gënoon neex a vérifier parce que quatre vingt quatre vingt pour cent de suñu exportation gerte la woon. kon donc douane amoon na toutes toutes les données qu'il fallait. Mhm. aujourd'hui on n'a pas les données. te bi ñu ko doon defar jamono yooyu dans les années soixante bi ñuy defar tonnage yooyu on était un peu moins de trois millions de personnes ci Sénégal. aujourd'hui on est je dirais cinq fois plus et pour pourtant ñu ngi toujours ci stade boobu. gerte gi day continuer di am problème parce que amul un réel projet industriel parce que bu fekkee ne jamonoy Senghor ñu ngi doon xalaat juste pour exporter gerte parce que amuñu woon une vision à long terme mhm. amuñu woon une vision euh, moo tax amuñu woon ay industrie mhm. quatre dans les années quatre-vingt y eu la sécheresse quatre-vingt-dix y a eu la dévaluation année deux mille y a eu les les criquets euh, les criquets. Mhm, ñëwoon nañ fi ñëwoon euh, criquets yi amoon na fi. Mhm. léegi loolu noonu yëpp on contribue à l' échec du système. depuis Ablaye Wade indi fi Guana bi mu fi indee Guana boo fàttali ko c' à la suite bi nga xam ne ni aujourd'hui ay traders de Wall Street ñooy déglu ndax agriculteur bi nekk dans le Bawol wala dans le Saloum war na am wala warul am. si seen loolu ñu tuddee si seen langage les produits dérivés. Mhm. bi problème boobu amee ba indi fi 2008. dans toute l' Afrique de l'Ouest boo fàttalikoo sax su ma juumul asko seen sax si la suivee ba waajooju ndaw commencé jiite affaire boobu et cetera dans tout l' Afrique de l'Ouest on a eu des difficultés d' de li ñuy lekk parce que ceeb bi ñu doon lekk fële la daan jóge ñooñu créé nañ fa problème transport ñëwatul léegi problème bi survenir na ñi doon dundee ceeb ya mënatuñu dundee ceeb parce que ceeb bi ñëwatul léegi imaginez comment un président de la République je parle pas seulement du Sénégal un président de la République mën a dépendre sur la stab stabilité sociale u dëkkam. Hmm. nekk ceeb ak dëwlin mu mën a mu bëgg dépendre ci extérieur. et pourquoi cette importation tant que ay UNACOIS ay ASEPEX ñu ngi fii di wax ci nopp président on n'aura jamais l'autosuffisance alimentaire on dépendra toujours du monde extérieur hmm. parce que ñooñu noonu li leen intéressé UNACOIS boo xoolee quatre-vingt-quinze pour cent de chiffre d'affaires am c'est de l'importation ASEPEX bu bëggee def chiffre def résultat il faut que mu pousser A que mu def l' exportation. kële UNACOIS importation mooy joxe xaalisam ex euh, ASEPEX agence la exportation mooy def xaalisam. mais loolu noonu on aura forcément une balance commerciale déséquilibrée. et on va aller jusqu'où voilà léegi doon nañ fi woon wax autosuffisance alimentaire depuis 2017 mais moom naam egguñu fa mais nee na ay jéego yu am solo quand def nañ ko. bon tey bi mu waxee rajo nee na yegg nañ ci trois millions huit cent mille céréales loolu la wax. un besoin couvert pour le Sénégal de quatre vingt quinze pour cent cela veut dire que tey boo jëloon cent yi ñu wala lekk quatre vingt quinze yi Sénégal lay jóge loolu c'est faux tey suba gi mburu bi ngay jënd blé bi nee naa la Russie lay jóge wala Canada wala France añ bi ngay lekk yaa quatre vingt dix pour cent de chance UNACOIS moo koy dugal Sénégal diwlin bi ngay lekk diwlin boo xamante ni mu ngi jóge dans l'île de Bornéo c'est-à-dire en Malaisie ou en Indonésie tout sans oublier que dañuy dax orang-outan yi c'est des animaux mhm. di leen chasser de leur fief pour que simplement faire des plantations de de, de palmiers à huile ya a un y a y a un rapport de l'ONG WWWF mhm. qui dit que ne chaque minute trois lu mat six de football la ñuy éliminer pour def ay plantations de huile de, de palmiers à huile dans l'île de Bornéo juste pour nourrir la planète quand même c'est désastreux et diwlin boobu et sans doute sans contester que c'est la mauvaise des huiles du Sénégal tey jii moom taxaw na tele ba rajo du moins nee na diwlin gerte c'est la meilleure huile du monde monsieur ministre bi moo ko wax na dem jàngiwaat. Voilà, c'est ce qu'il doit faire. Mhm. doit aller la deuxième, c'est pas la première. C'est mhm. après, après l'huile d'olive. ok léegi ñu wax ni ci euh, mbay mi ba tey ñu tëjee ko ci ponk boobu li nga xam ne moom moo jëm euh, ci euh, mbay mi est-ce que yow gis ngeen ni am am na ay nit yi nga xam ni secteur bi ni mel ñu ngi ci gagné bu baax a baax ci secteur mbay bi ni mel ca diwaanu Bawol Sénégal Ndakaaru Njaay fii est-ce que ñu ngi gars yi ñu ngi gis seen bopp ci secteur bi bon. man bi ma ñëwee euh, première année bi collaboration plateforme Raziat bi. Mm -hmm. six mois sans le nier. Mm eu du courage à re à définitivement sama dëkk. parce que tellement affaire bi da doon dox. da doon dox pas parce que dama doon téye xaalis bu bëri je voyais un mouvement industriel ci sama société bu ma musul gis. Raziat mooy soxna Xarim Mbacke maam Xarim très bien mhm. secrétaire général. Mm -hmm. Ousmane Diakhaté bi ma ñëwee première six mois lañ liggéey j'ai commencé à travailler mois de mars mois d' août usine bi tëj na parce que gerte gi jeex na chinois yóbbu woon nañ lépp élan industriel boobu ñu dagg voilà les difficultés aujourd'hui tey li nga doon wax jamono boobu waa Bawol lañ ci duñ gis say bopp ñi sama ñi ma daan yoral machine yi kenn ki dan il est aujourd'hui à Dakar exodé xam nga lu muy def day raxas oto et pourtant yor na métier bu noble machine lay dawal machine buy jar quinze millions lay dawal je veux parler aussi de Cheikh Mbaye aujourd'hui mu ngi à Colobane di jàng di jàng métier couturier moom it machine la daan dawal je veux parler aussi de Daouda qui aujourd'hui est à marché Ocass di jaay mbuus moom it machine la daan dawal léegi système bi jusqu'à quand début bi ñooñu noonu ñëpp li nga doon wax gis seen bopp ñooñu noonu ñëpp dañ si doon gis seen bopp je veux pas parler de femmes yi nga xam ne ñoo doon ñëw tous les matins ci sama usine ñu régler fa 2500 dem togg añ pour que seen doom bu ñu wàccee fekk fa añ le groupement de femmes yi nga xam ne suñuy résidus yi maanaam déchets yi nga xam ne moom la ñuy transformé moom la ñuy jël defaat ko saabu ñooñu noonu je parle pas de c'est des milliers tellement elles sont imposantes ci secteur bi ba bu ñu ñëwee sa usine dañ lay jox 500000 rien que pour jënd déchet boobu bloqué fa ko parce que les femmes sont plus nombreuses que les usines tout ce système là s'est écroulé tout récemment mercredi dernier j'ai fait une visite de toute la je failli pleurer ou j'ai même pleuré voyant ces machines am na koo xamante ne maa ko mujjee jaay pat te man maa ngi gëj a dawal août 2019 ces maire de famille aujourd'hui xamuñu fenn fu ñu jëm lu dul loolu lañ xamoon et tout ça parce que je préfère le chinois que le sénégalais loolu c'est pas du racisme loolu c'est du bon sens c'est du bon sens il faut que ce ministre se réveille man bokkuma ci kuy wax jóge fii bokkuma ko ci kuy wax mënoo dara non je le redis simplement mu dem jàngiwaat la meilleure façon mu xam li système bi pour xam li système bi nekkee. Mhm. c'est pas que mu mu wax ne maa ngi ñëw ñu tegal ko ay fanfare boobaa du xam dara na dugg incognito dugg dans la dans la chaîne de valeur. bu boobaa dëgg-dëgg vraiment lay xam les dégâts de ces de de nga xam ne actes yi nga xam ne posé na ko. yéen yaa ngi wax ne Raziak nga bokk mm-hmm. est-ce que tey waa Raziak itam jug nañ sol seen dàll itam ngir mën a xool saafara. Euh, si solution bi euh, ndax euh, soxna maam xëri Mbàkke moom itam ci dox ay jéego ci wàllu wi ni mel. bon maam xëri du ko ci tudd parce que démarche bi may def sama démarche personnel la euh, gisuma ko personnellement mu def dara bon voilà APR la bokk mais les autres acteurs du secteur je veux parler de tous les autres ils sont en train de se battre. mais est-ce que am nga ñi nga xam ni ñoo xam ne cause bi ngay xeex ni euh, am nga ci soutien yoo xam ne bari nañ. vraiment su ma mënoon ubbi sama fii parce que c'est c'est le domaine privé mënuma ko def bu ma mënoon ubbi sama groupe euh, sama WhatsApp bi ma créé tu vas voir tous les cent cinquante unités yi nga xam ne ñoo nekk Touba di transformer amul kenn koo xamante ne woowuma qui s'est magnifié de li nga xam ne première chronique bi nga xam ne def naa ko kon donc man li may combat pour man les moyens que j'ai mis pour arriver aujourd'hui ak Sénégal ñu dégg ma mënoon na jënd deux machines ma segal diwlin mhm. créer en des emplois yokk PIB wu Sénégal bi résoudre le problème de la croissance mais aujourd'hui je dévie de mon objectif aujourd'hui je suis un journaliste en herbe oui maintenant il faut que j'attaque je peux pas toog investir vingt mille vingt huit millions ci ab usine deux ans liggéeyul ab usine bu waroon nekk un actif qui est devenu aujourd'hui un passif mais c'est inco incroyable France je fais moins de chose et pourtant je gagne mieux ma vie ñi ma fa nekkal personne ne peut croire pourquoi ma bàyyi teraanga bu toll nii di dem di rayante dans dans ce bled noonu lañ koy waxee ñoom et pourtant lu ma gëm la parce que man sama conviction mooy que Sénégal dafa war a atteindre l'autosuffisance en huile c'est pas parce que mënuñu ko Sénégal a besoin d'un peu moins de deux cent mille tonnes d'huile par an. fu muy jaar léegi pour am loolu. wala yow mi nga xam ni tey xam-xam xam-xam màcc na ci wàllum diwlin ji euh, Sonacos nekk fi xanaa doo ko gën a rey mu dee itam gën indaat ki keneen. non voilà da nga da nga man xam nga ni la ma wax naa ne la ñun bras industriel lu Sonacos c'est-à-dire que ñun. Sonacos li mu mënul investir si machine. Rasiaat daf ko investir si machine pour permettre à la Sonacos mu souffler léegi Sonacos bu jotee gerte dañu koy jox ñu defaral ko premier travail bi moom mu def raffinage bi. boobu c'était pas juste la Sonacos c'était Sonacos FKS ñi Sonacos moo nga xam ne moom moo nekkoon di liggéey ak ñun donc man je pas un concurrent de la Sonacos je un bras industriel de la Sonacos mm-hmm. donc aujourd'hui le secteur il est important tey jii ni ñuy toggee dawlin ci dëkk bi huile mm-hmm. de gerte est mieux l'huile d'arachide a un oméga 3 c'est bien pour les artères ça débouche les artères aujourd'hui AVC yi ngay gis ci dëkk bi de des des personnes de moins de quarante ans c'est dû à l'huile de palme qu'on se Euh, la la loi Nutella. Mhm. boo xamante ne gars yi dañ ko doon xeex pour dindi huile de palme sur le marché mais dañ ko gagné première instance demaat deuxième instance Nutella gagné waat leen c'est-à-dire que man je veux pas dire que ne lii moo gën wala lii moo gën a gën c'est des scientifiques qui l'ont dit mhm. l'huile d'arachide c'est la meilleure c'est la deuxième meilleure du monde mhm. et aujourd'hui mënuma comprendre pourquoi huit cent mille tonnes gerte xott mooy régler problème mu déglu nu Sénégal te ñuy am un million quatre cent mille tonnes te amuñu dëwlinu Sénégal ci dëkk bi dëwlinu gerte c'est problématique. <laughs> mënuma comprendre loolu ñu continuer di importe gerte imaginez Sonacos day jël dëwlinu gerte Sénégal dem ba sur le plan international jaay ko jël bu bon bi indi fii mais loolu c'est pas une philosophie industrielle. donc la ñu war a changer la donne. laa ilaaha illallaah Sonacos Sonacos Dakar dañ ko war a tëj Sonacos Louga daa war a tëj Sonacos Diourbel daa war a tëj c'est pas viable industriellement man je parle en non seulement machines yi fa nekk li ñuy wax investissement booy wax li ñuy wax éléphant blanc Sonacos yooyu c' est des éléphants blancs c' à dire que li ngay dépenser moo ëpp foofu résultat bi nga ciy génne donc Sonacos amul viabilité économique biñ ko biñ ko privatiser en 2005 bi ñu koy delloo en deux mille quinze. Mhm. ñi ko yoroon le groupe Advance ñi ko yoroon ils ont longtemps longtemps longtemps crié que Sona ñetti Sonacos yi ma la jot wax nii. Louga Diourbel ak Dakar. Dakar dafa war a tëj. parce que amul viabilité industrielle mais ñoom ñu ngi def ay jéego quand xam nga Sonacos Dakar. Mhm. mu ngi ci capacité dix pour cent de sa production. imagine nga am nekk ci de sa production du man maa ko wax de y' a un rapport de la banque mondiale boo xamante ne ministre de l' agriculture moo ko instruiram banque mondiale pour mu defal ko sur la chaîne de valeur kooku moo ko wax kon donc arrêtons soit on est des industriels ou on est des politiciens mais on peut pas être les deux à la fois <laughs> alors tey ñuy dalal euh, émission gox bi ki nga xam ne moom moo di Alpha Diallo nekk entrepreneur xam-xamam màcc ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum gerte gi alors euh, Alpha dañuy tëj foofu tëngéej gi nga dëkk mhm. tey <laughs> euh, alfa euh, yaa ngi gis tëngéej tey naka la mën a jaar tey ba suqali gox boobu ñu naan tëngéej tëngéej ak bu ñu ko doon dégg mhm. lu mu yàggee lool euh, ndax tey alfa nox nga gisee tëngéej tey tëngéej du mës a wu pour une raison déjà yow su ma la waxee tëngéej sa esprit rek da nga naan dafa salte sa esprit bon je te repose pas la question bëgguma nga tontu lu tax ma wax la du la développé wu je vais te dire une chose. lan mooy problème bi. Macky Sall monsieur Sall dafa doon ñëw euh, mooy que conseil ministre décentralisé yooyu. Mm -hmm. j'ai oublié la date. Mhm. boo ñëwee ba rond-point Tëngéej dafa am principal bi. Mhm. am secondaire. Mhm. mais comme nag président buy ñëw du ñu xam fu muy jaar. gars yi jël secondaire bi nga xam ne man trent 34 ans la am ma gis ñu koy defar jour boobu ma gis ñu defar route tali boobu en 3 jours. maanaam pax yeeg. dagg dagg yi non du tagg dagg yi tali bi lañ defar. Ah. yëpp trois jours. kon ma xam ne xam nga ñi xam nañ liggéey le demee may dem football yi jaar ci vulcanisateur bi ne ci rond bi di di gonfler sama bal ma ñëw fekk ñu fay dindi pneu yi ma ne ko lu tax ñu koy dindi ñu ne parce que président bi moo fiy jaar ma ne bañ sa bopp weesuwul lii léegi imaginez jour boobu su ma amoon deux questions yi war a gis Macky Sall ne ko vulcanisateur boobu sama bunt pneu yi mu fay teg day indi yoo daf may jox paludisme wala chikungunya wala dengue. Mhm. mais ma ngi monsieur Sall lan la may tontu mais gisuma fa pneu su ma nekk tali secondaire boobu defaruñ ko mu ne ma waxoo dëgg falaa jaar. ba léegi defaruñ ko. no maanaam dama lay wax jamono boobu. <laughs> danaa ma waxoo dëgg falaa jaar defar nañ ko pourtant et il a raison mais moi aussi j'ai pas tort bi loolu paasee. Mhm. bi loolu paasee lañ jëlaat pneu yëpp indi ko bu fekkee nag ki war a régler problème yi. bàyyi woo ko mu gis problème yi mu jàll ba gisul problème yi. Hmm. mais nan la ñuy defaree. da nga jàpp ni taf yëngal moo bëri. ci kër yow loolu gañ weesu na taf yëngal. taf yëngal weesu na loolu maanaam bañ sa bopp sax daa romb loolu. yow dafa war a régler problème bi nga xaar ba muy jàll. Hmm. nga dindi problème yëpp mais il va pas t'aider il va pas t'aider léegi nag euh, collectivité bi fa nekk maanaam maire yi tout compris hmm. man je vois pas leur intérêt dans la ville de Rufisque jour j'ai essayé mooy jóge Tëngéej jëloon benn bout de fer takk ko ci benn zone ma sama benn rakk ma ne ko maa ngi dem mais su ma ñëwee fii laa koy fekkaat lii ma def deux ans Europe ñëw fekkaat fa weñ boobu. donk dara bougé wul. waaye yow demuñu sax voilà léegi nag politiciens yi lenn la ñuy def ci dëkk bi. Mhm. tubaab yi bu ñu bëggee ñëw ci dëkk bi regle li ñuy regle ci dëkk bi. Mhm. pour ñu jël suñu alal facilement. dañuy fer en sorte que ñun ñëpp ñu accro ci politique. dëkk bu fekkee ñëpp ñu ngi def politique c'est parce que dëkk bi doxul léegi ñun ñëpp politique lañuy def. ñoom silencieusement dañuy jël li ñuy jël bu ñu amee problème obstacle jël si quelque xaalis jox ñu bàyyi ñu bàyyi mu jàll. léegi yàlla moo war a doon sa apport en tant que jeune entrepreneur dëkk ci gox ba da nga war da ngay xool rek euh, ñu def nga bàyyi di seetaan. non je regarde pas parce que man j'ai jamais été passif wala inerte ci sama live et pour le moment officiellement Tëngéej bi ma nekkee xale ba léegi defe naa maa ngi fay def ku ma xam te Tëngéej xam na ma ci spectacle depuis 2006 sama spectacle bi gën a mag ñu tuddee ko woon Gimmi Gindi dama ko def le 26 si guddi gi laa dem laa tukki la première tukki c'était en 2006. Hmm. avant boobu maa njëkk indi Pape Diouf dans la ville de Rufisque Carlou D aussi waxi noovin mais loolu c'est pas des prouesses yu mën a changer mais quand même j'ai participé l'animation euh, euh, du du de la ville mm-hmm. te boobu j'avais que vingt ans yaa ngi dégg mm-hmm. pour le moment sur le plan industriel pour le moment je n'ai rien pour la ville de Rufisque mais quand même y yoo xamante ne une fois que ma résoudre li may def parce que mm-hmm. kenn du régler problème ci kaw problème j'ai déjà un énorme problème un secteur et surtout une ville un département muy Touba boo xamante ne d'après pro d'après décret bi bu bu bu bu bu bu Abdoul mbay defoon. Mhm. sur l'urbanisme wane ne Touba en deux mille vingt dina am trois millions six cent mille personnes et sans industrie. Mhm. amul benn industrie à Touba. seule industrie bi fa am mooy bras industriel Sonacos bi mooy Rasiat ñu ci bari de milliers et des milliers de personnes dépendaient de cette chaîne de valeur. aujourd'hui cette scène est s'est écroulée mm-hmm. man pour man sama combat instant bi mm-hmm. donte nekkuma waa Bawol mm-hmm. pour man sama combat instant bi foofu la pour que ñu régler problème boobu est-ce que tey kon euh, su ma la déggee pare nga Euh, pour ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu noonu ca diwaanu Bawol def benn jonction xool naka ngeen di mën a porté mun suma ko mënee wax combat bi xool naka ngeen mënee amee atteindre seen objectif ndax yaa ngi koy wax léegi boo nit ñu bëri ñu ngi supporté nangu nañ cause bi donc euh, lan moo ci des kon ngir mën a taxaw mën a jàmmaarloo euh, jëli li ngeen moom. très bien boobu commencé nañ ko depuis suñu sama première chronique bi defe naa première chronique bi a touché tellement de monde que j'ai waaw voilà moo lancé encouragé ñu bëri après j'ai eu des appels de beaucoup d'autorités de beaucoup de personnes yu ma gone yu ma donné plus de courage mhm. mercredi passé comme ni ma la ko waxee dem nañ Touba def une tournée sur la chaîne de valeur c'est un reportage de une heure quinze minutes maximum qui va se préparer mhm. loolu samay chronique dafay génn toutes les deux semaines sur buy wax si réellement si la de valeur mhm. ñu ngi waajal eh, benn émission defe naa war nañ ko génn à Walf boo xamante ne dañuy wax chaine de valeur bi yëpp dinañ aussi defar euh, y aussi un point de presse mm-hmm. bu ngand bu ñuy defar balaa mi février mm-hmm. parce que fii weer bi di jeex fii wala bawol bawol mm-hmm. bawol lay doon boo xamante ne tous les acteurs seron présents on parlera de tous les dégâts yi nga xam ne protocole bii bu chinois bii di dem ba deux mille vingt quatre. Mhm. mu fi. Mhm. boobu noonu on parlera de ça on proposera des solutions parce que man du ma kuy kaas rek. damay kaas di joxe waale ay solutions. Mhm. bu la neexee nga jël bu la neexee bul jël. mais kenn du dégg rek ci kaas. dinaa kaas damay joxe ay solutions. léegi nag bu ñu ko jëlee baax na bu ñu ko jëlee baaxul. mais man je pas quelqu'un boo xamante ne day xaar. système bi waaw day xaar système bi mu koy buux de gauche à des lauriers d'or, mm -hmm. mais quand même, je sais me battre. Okay. Et je me bats battre logiquement et légalement. Mm-hmm. l'émission tire à sa fin presque daanaka jeex na ba pare ba ñu jox la euh, kàddu gu mujj gi nga daal di euh, euh, jox la xool nuyu say ànd jàmm. genre en tout cas ñun amoon nañ te itam mm-hmm. trop dalal la ci émission bi waxtaan nañ ay pàcc yu am solo. Mm-hmm. je pense que nii itam lii li ngay def am na solo itam boo demee ba gis nii loo xam ne doxul. Mm-hmm. jot na ñu toog dem wax mais itam. est-ce que itam dialogue du alternative bu baax bi. non man man jaloog laa jiital si lu ma mën a nekk parce que bon voilà man gëmuma yor ay yor ay doj di sànni rek. voilà man dialogue laa laa jiital ci lépp loo xamante ne moom laay def boo xoolee boo gisee samay action yu may mëne c'est juste pour avoir un moyen de dialoguer mm-hmm. voilà donc euh, c'est ça et et mm-hmm. voilà donc euh, maa ngi remercier sama frère de combat yëpp. Mm-hmm. Euh, sama frère de Raziati fàttewuma sama rakk Boubacar Diallo. Mhm. boo xamante ne maak moom depuis deux ans ñu ngi ci secteur bi. Mhm. moom de le le peu de li mu amoon mu investir ko en plus diplômé aujourd'hui euh, affaire yi takk. voilà et je remercie ñi nga xam ne abonné wu nañu suñu page YouTube. Mhm. ñi nga xam ne les mille huit cent personnes yi nga xam ne seetaan nañu de partout. et dire que le combat va continuer. Mm et surtout un combat pacifique. Mmh. Parce que je ne suis pas violent. J'ai été éduqué à respecter les institutions et les lois de mon pays. Mm-hmm. Je le ferai. Mais aussi, je me battrai légalement pour qu'enfin ñu jox ma samay droit mhm. voilà jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax monsieur Alpha Diallo di jaajëfal itam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak yow ci la nga xam ne moom moo jëm ci mbirum technique bi di gërëm sama réalisateur bi ci bae vitre bi di euh, babaay dara sant leen gërëm leen mbokk yi ñu jox leen dig daje euh, beneen dimanche ak beneen invité ci émission gox bi